maa ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam di doom ci euh, Daba Soumaré mm-hmm. Rokhaya rek di doom waaw di doomam di man maay aadama mm-hmm. ah am na sama seex Awa ak sunu sunu mag Malick mm-hmm. waaw mu nekk lu lu lu diis lu metti ñàkk waajur bu jigéen euh, ana leen kàddu ngay ngay ngay wax ni que moom nga xamoon ci sa ki nga xam ne mooy sa waajur bu jigéen Euh, euh, seede yi seede yi seede yi seede yi ni ñu seede woon démb ak tey moom lañuy ñuy seedewaat rek ku baax ku jullite jigéen gu yiw jigéen gu xam mbokk bëgg mbokk xam valeur xam boppam jigéen gu yiw jigéen gu teey jigéen gu am lislaam ñun bañ ca tolloo daf ñoo yóbbu ca daara ja nañ dem leen jàngi ci ñu dem daara dem jàngi daara ndar mu jógee ndar ñu yóbbu ñu tiwaawoon ne dem leen jàngi ji ku bëggoon tamit xadara Seydi Hadj Malick la woon ku bëggoon xadara bi la woon chaque gàmm bu jotee daf ñuy dajale yóbbu ñu ñuy gàmmu ji ñibbisiwaat yóbbu ñu daara ñu jàngi ji bañ ca tolloo aussi tamit jaay na ay takkaayam ak orom yëpp pour ñu ñu jàng rek pour ñu tekki tey jii nii moo tax aussi tamit ba mu ba mu nekkee ci ay tolof tolof aussi tamit ñu ñun ay doom ñu taxawu ko mm-hmm. taxawu ko ba fa kenn nekkul ak ay mbokkam waaw. ñu gis ko mu nekkoon ci milieu bi nga xam ne théâtre la doon bégal nit ñi est-ce que bi euh, maladie bi amee walla mu feebar gisoon nga ci ñenn ñi nga xam ne seqaloon na ñoom ak liggéey waaw loolu moom ku wax wax dëgg te yàlla tax. Mhm. ñoo ngi euh, gërëm di sant waa waa jànkeen waa jànkeen production ñëw nañ fi seet si ko taxawaay ci la ca war mhm. di jiital Bella Sène ak Binta Samb ak Saneex Saneex def na ci lu ci war man wuute wu ma ak sama seex parce que mook sama seex ñoo doon ñoo doon jokkoo moo ko moo ko indi yóbbu ko ñu koy faj bàyyi yitteem yëpp Saneex ci boppam ak bi ak Binta Samb ak Bella seen sonn nañ ci trop trop trop trop te dëgg yàlla ba meer bi ba mu nekkee ci diggante ba mu toogee feebar tëdd tëdd bi nag yàggoon na mais dëgg yàlla euh, dox nañ ci jéegoo ba mu amoon tan ba ñu amoon ci yaakaar ne tane na mais dëgg yàlla di gërëm waa jànkeen encore une fois waa jànkeen taxaw nañ ci ñoom Seex Sekk ak ñoom ñi ñëw nañ ba kër kër kër kër euh, kër doomam jigéen bi mu nekkoon ñu seet si ko ba mu rentre mu hôpital nekk ci lalu hôpitalam tamit yàgg fa ñoom ñoom tamit ñëw nañu def seen délégation ñëw seet si ko dëgg yàlla waa jànkeen ñëw nañ seet si ko surtout Bella Sène ak saa neex ak Binta Samb dëgg yàlla taxaw nañ ci luñ ci war a taxawee ak ak ay mbokkam waaw. démb tamit ñu daal di gis témoignage bi ki nga xam ne moom la def maanaam imam bi di xamal ni que nit ku bëggoon diine la ndax bi mu feebaree sax mi ngi laajte façon bi nga xam ne moom la war a jullee ci ku sonn. waaw comme li ma la waxoon rek tey sànq nee naa la bëgg diineem bëgg xadara Seydi Seydi euh, Seydi Hadj moo tax fu mu toll daf daf ñu daan soññu ci di diine gi. moo tax mu bañ bañ ca tolloo mu jël ñu yóbbu ñu daara mhm. ñu dem jàngi ji bañ ba mu ñu yóbbu daara di dem jàngi ji sax amoon ñoo ne nekkoon ca koñ ba sax amoon ñeewantal ci ñu mu ni déedéet dañ cee tollu nañ koo def mhm. mu jël li mu am ak li mu amul yëpp dem te aussi tamit dundoon ci sutura dundoon na ci sutura dafa ne woon ba bañ bañ nga waxee ne ko léegi di esku duñ la jéem a ñaanal ndimbal mu ne mbokk bu ma kenn ñaanal ndimbal ni ma leen yaree ba ngeen nekk xale ba toll nii ci sutura kon nañu continuer noonu ci sutura ba yàlla weddi ba yàlla tey ji def ni tey ji wedd na ko may nag sàng na ko malaanu sutura sutura na ko may na ko sutura àddina yàlla na ko yàlla na ko yàlla may sutura àllaaxira may na ko sutura fi ci ana ana yan kàddu yu mujj ngeen mujjee eh, wecconte yéen ñaar waaw eh, dernière semaine bi ñuy waxtaan mooy semaine bi passé rek samedi bi daf ma daf ñoo woolu mu ñëw mu ne ma aadama ma ne ko waaw mu ne ma baa sama feebar bi amoo leen ci bor ma ne ko déedéet amuñu ci bor de mu ne bëgguma may dëddu àdduna di fi yor boru àddina ma ne ko noonu déet bul wax loolu yow yàlla dala fi bàyyi ba ci kanam kanam mu ne ah man li ma leen wax rek li ma leen di ñaan rek ngir yàlla ngir jëmi Seydina Mohamed bu leen fi ameel nit bor même bu ma doddoo bu leen bu leen leb bu leen ñaanaatu ni ma leen yaree dignité bi ak suturate bi sutura ngeen ànd ci loolu noonu dañ ñaar waxtaanam maa ngi moom loolu la ñu wax ma ngir yàlla rek dama leen koy ñaan sama feebar bi bu fekkee da ngeen ci am nit bor ngeen teel ma ko wax ma ne ko wallaay sumaare amuñ amul amul amul amul amul amul bor amul amuluñu benn bor te suñu war waru gar la ñu def ko parce que ba ñu bañ ca tolloo da nga ko def dafa jaay ay cakkaayam jaay ay ooram jaay léppam ndax njabootam sonnoon na ci njabootam wallaay azim sonnoon na ci njabootam torop te ba dafa bëgg njaboot dafa bëggoon njaboot nee na moom lépp lu mu mënte am lépp lu mu dem wuti ji ca àll ba li muy njëkk xalaat njabootam du fanaan àll te gisul njabootam ba mu ca tolloo sax doon doon def ay émission am doon def léppam lépp lu mu mënti am lu mu guddi guddi guddi guddi guddi dina ñëw fanaan si si njabootam te bu ñëwee daf ñuy yee ñun ñëpp ba ñu gis ko ba suñu xel dal mu doogaa tëddaat kon donc di ko ñaanal yàlla yàlla ji wàcc yërmande ci kawam yàlla ji atte ko ci yërmandem atte ko atte ko ci euh, ci yërmandem te suuf sedd ci kawam yàlla ji euh, xaare ko àjjana lépp ñoo ngi bàyyi lépp ci loxo yàlla sunu borom yàlla moo xam ku baax moo xam ku bon moo xam ku jug moo xam ku dëng ñaan na ko yàlla fay jëfam jëf yu mu doon jëf parce que dama ko daan fekk fii euh, ci deux ans yi ci ginnaaw ba mu ba mu toxoo sax fii këram gi këram gi kenn fekk ko fi moom moo ko tabax ba muy metti moom moo ko tabax moom moo lijjanti def lépp tabax ko ba mu pare moo ngi nii tabax ko ba mu jekk dama naa ñëw fekk fi xale yi xale yi ndaw yi tout tànkam ci xale yi koñ bi ci tout tànkam ci ci néegam ci kaw lalam ma ñëw ne ko ah, mère xale yi nag mun naa ma bàyyi leen ñii samay samay ñii samay sët lañ ñii samay doom lañ ñii ñoo may wétali tant que yéen nekkatoo leen fi ñii yére yow yaa ngi dem yaa ngi liggéey kii moo ngi liggéey kenn nekkatu fi kon bàyyi maag tout tànk yi nii parce que moom mu jéem jamono daa demoon ba tout tànk yi ñoo doon ay xaritam tout tànk yi ñoo ko daan defal lépp ci koñ bi ñëw naa ñëw fii nekk ak moom di waxtaan ak moom di ko wétalee di ko kii saa bu ma ñëwee gis ko ma ne ko waa ah, euh, tout tànk yi moom mun ne ma bàyyi maag tout tànk rek mm-hmm. te wallaay wallaay azim bàyyi maag tout tànk mm-hmm. noonu la leen daan dajale fii di waxtaan ak ñoom di kii ak moom mm-hmm. yàlla rek ko xam yàlla na ko yàlla xaare àjjana yàlla na ko yàlla jéggal yàlla na ko yàlla jéggal waaw na ko c'est à saluer Mm-hmm, ah, mu nekk mm-hmm, mm-hmm. boo xam ne tamit nan ngay wax ñeneen nga xam ne ñoo nekk seen biir parce que tamit dem nañ ba nekk famille mm, waaw euh, Cheikhou Gueye euh, euh, frère la ci mer ci ci ci kenn xamu ko peut-être ñi ko xam bëriwuñu mais frère la Cheikhou Gueye ak yaayam ak papaay ak papaay Rokhaya Soumaré ñoo bokk Cheikhou Gueye cousin la ci ci ci kon bu ko taxawee rek bu defee taxawaay boobu taxawaay bu ko war la Bella Sène tamit taxaw na ci taxaw bu rafet Bella Sène taxaw na ci taxaw bu rafet a rafet Binta Samb te naan ko koo Samb tamit taxaw na ci taxawaay bu rafet te Binta Samb ku ku gisoon ki gisoon ku gis Daba Soumaré rek di nga gis Binta Samb ci ginnaaw mu jëlu dundam dafa nii man daf ma woo ba ma ñëw mu ne ma bu ma fi nekkulee jàpp leen Binta bu ma fi nekkulee bu ma dëddoo aadama bu ma dëddoo àddina jàpp leen Binta Samb mii mooy man maay moom moo tax démb wax naa ko nee naa ko ñun jël nañ suñ lépp jox la ko tant que maire bi nekkatu fi léegi yaa fi nekk mu loolu la Bella Sène tamit taxaw na ci euh, Sanex moom dañ koy ñaanal yàlla dañ koy ñaanal yàlla parce que def na ci lu ci war personnellement man gisuma ko mais ci awa la nekkoon moo ko awa doon déggante mook awa ñoo doon defante lépp mook awa ñoo doon dox ñoo doon wax ñoo doon xàccandoo ñoo doon doorondoo te awa dafa ma doon rendre compte saay bu ko saay bu ko maam Cheikhou Gueye woowee mu woo ma ne ma maam Cheikhou Gueye woo na ma nee na ma nañu indi maire nañu indi lii lu ne indi na ko fu ne yóbbu na ko pour mu pour mu tane mais jaam ak pexem yàlla ak dogalam jaam ak pexem yàlla ak dogalam mais nañ nañ ko sant nañu sant Sanex sant nañ ko ñun book njabootu Daba Soumaré ñoo ngi sant Sanex Euh, Bella Sène ñoo ngi sant koo Samb ñoo ngi sant tamit suñuy nijaay taxaw nañ fa ñu war a taxaw suñuy yaay tamit taxaw nañ fa ñu war a taxawee mbokk gi yëpp taxaw nañ fa ñu war a taxawee kon donc ñoo ngi leen di sant di leen gërëm waaw même aussi Malick sunu mag sonn na ci sonn na taxaw na ci taxawaay bu rafet sonn na ci parce que moom moom mujjoon dëkk ak moom moom moom mujjoon dëkk ak moom sonn ci sonn bu rafet sonn ci sonn bu rafet bis kaay kaay kaay kaay rek kaay kaay gars yi dañ doon dañ doon seede kaay Ablaye nijaay kaay kaay kaay kaay leen rek Sine waaw Sine day Sine ñoo ngi nii dama dama doon def témoignage léegi ne leen ñoo ngi nii tungu du teew ñuy natt loolu la wolof Njaay wax tungu du teew ñuy natt li ma leen waxoon rek nee naa lañ waa jànkeen taxaw nañ ci taxawaay bu mu tëddee ci la l'hôpital nekk kër awa ñii ñoo déplacé wu ñëw def ci la ca war te ñi miinu ma leen de miinu ma leen de waaye lañ ca war def nañ ko moo ngi nii la ma waxoon léegi même pas cinq minutes ñoo ngi nii taxaw. Hmm. kon donc dëgg rek ay wóor ñoo ngi nii bàyyi naa la dem ñoom <laughs> kii moo ngi nii hmm.